MCS International, études d'information à l'étranger. Vous êtes élève du terminal, bachelier ou étudiant, obtenez votre admission dans les universités françaises, américaines ou canadiennes. Grâce à MCS International, vous bénéficierez d'un accompagnement et d'un suivi pour la réalisation de vos projets d'études supérieures à l'étranger. Contactez-nous vite au 33 868 69 28 ou au 77 826 acca jërë ngeen jëf mbokki Sénégal jërë ngeen jëf mbokki àdduna rawatina ñi yéen ñi ñuy suivre ci Lutte Sénégal TV ñu ngi leen nuyu di leen siyaar nee naa la site la boo xamante ne bii rek lépp loolu mënti bëgg ci wàllu làmb rek fii lay xewee ak fu ndaanaa ñi nekk rek ñu fi jëli leen waxtaan ak ñoom moo waral tey ñoo fi nga xamante ni mooy Malika set si koo xamante ne bii ndaanaan la champion la def lu na ci biir làmb ñu fas yéene waxtaan ak moom gëj ñu ko gis gëj ko dégg namm ko te dañuy am mbégte ak kontaante am fer tamit jakar ak mom ndax mom bu waxe jox ñu ñu wax delo rek ñu ñu wax ko mu delo ñu rek benen affaire la mi Bébé salum dañ koy bàyyi mu nuyu nuyu ñu suivre su ko defé ñu dugg ci waxtaan bi Bébé ma ngi lay nuyu di la mo maam Thierno ma ngi lay fay di le bëggee di bëggee wa aduna di wax on subila bismillah inna wallahu yalla on subila bismillah inna wallahu yalla monsibillah bismillah inéwalewu Yalla jërëjëfe Sering abdul karim Bak naaru moom aw fay suma sang ba yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér maa ngi ñaanal ñu màggale woon yàlla bu leen ci dara mooy yàlla na sama borom jël lañ Fek woon ci daraja alaaji fàllu fekk ñi ci hôpitaux yi muy njariñ ci ñoom fekki waa kaso bi muy njariñ ci ñoom fekki borom njàqare muy ci may bëgg wax damay rek ñu ma micro war wax lu ci jub sante naa ko sama boroom lu ci dëng maa ngi koy jéggaloo jaam ñépp sant sumay ñaari way jur julli ci sangu-sang yi sallallahu salaam lii laa nuyoo jaamu yàlla yi. ci biir ah, di làmb làmbam rek bu dajee génn actuellement avance laa gisagul rek waaw mais bu ma dajee rek génn maa ngi làmb quoi. ah déedéet bàyyeegu ma ko de ndax nag wax dëgg yàlla. lamb amna ci place nak bu re re re re wax deug yalla ak lan mo waral mo wara baye lamb la laa xamut. Hmm. Bébé nekk ci lamb def lu am solo am départ bu am solo. Hmm. ñu ko doon seen tay fi champion yi mag wala fi ndaanaan yi nekk ci kaw bebe bokku ci ñi té lamb mais bebe ci suñu tey mu mu démé non problème bebe ci bir lamb la la. li sonal gor. Hmm. moo ma rey. muy ñeme dëgg ta gaay bëgguñ ko. boo ñemee dëgg dangay ngay wéet ci saw yoon soo doonee naa féq nag dañ lay bëgg indi la lépp lépp yomb la sénégalais mun nañu yenn gan waaye duñ ko gunge te maam Thier ma wax la lu kenn mënta defar ci àdduna ngan gu yàqu kenn mënu koo defar gunge defaru ko gunge defarul ngan gu yàqu ma doyloo sama boroom nag ci mu tuut li may jox ci làmb luma deug di may yalla nako beuri le luma nafiq di may yalla bu am ndax seigne Abdul Karim mbake Makarim lañuy dundulo ta makarim deug ci jitu biko di yermande ku yaakar may ray samay wax ci yow ngir bëgg lu la neex ah deug yalla ko mom nak sam deug yalla ji daf moy gënal sam li neex ci mom cher motax nak xeyna awuma ci badjen ndax lamb bo ci amé badjen dem mba nga am ci umpaañ mba nijaay mba baye ñu ko ci am sax maa daq dàq bëre gën leen a mat mbër waaye am nañ ku leen waxal man nag sama wetug yuuxu sëñ bàmb rek laa koy dëpp ku yaakaar ma dëpp la sama gémmiñu wàllu walla yàq nga ko sëñ bàmb rek a ma doy moom rek ka ma yéem moom rek ka def lu ma jaaxal te moom rek ka doy làmb nag làmb la rek du biir day jekki wasin mun nga mun nga séentu nit ci dina egg fii yoonam yéex waaye la la ko xalaat loo ba nga séentu ko fa sans borom bis dina jot mu eggale la fa. loolu nga yaakaaroon dara tasu ci ndax li nga ko yaakaaree noonu laa ko yaakaaree ci sama bopp te li ma koy may mayit aussi maa ngi ci ay mbokk laa manqué woon waxuma mbokk personnel ay mbokki làmb laa manqué woon te yàlla am na ñu ma ci ñu ma ci commencé indil ñu bari ñu ngi ma teg ci ruq di ma liggéeyloo maa ngi ci di ñaan san boroom eggali loolu yàlla defal ma tawféex. bàjjam muy manam baranlon yi am ci lamb rek nit ku nek am kuñ koy ragalé mba kuñ koy rusee rek buñ né diw ñu né eh, diw ne ci ginnam ñu né diw ñu né buñ dé dalo avance bi diw koy joxe diw def na nangam million ci lambam diw lañ ko soralé diw tax ñuy lambam gisoo man may mbeur mi kenn musta may 1 million bu may bëree ba ma dalee bëre ba légui def 23 combat musuñ nit ku ko def nako wax ki tok ci ki wax lo xamni fi ak 25 ans du deñ li muy wax ñeme na ko ku ma mës a may un million ci sama làmb na ko wax. musul am musul am. te daj naa ci nit lu ne. waaye ku may daj ci yow dara retour taxul woon yàlla rek a tax ma di ko daj tey laa ko gën a mën. man nee naa la ku ma tooñ na ma duma ku ma tooñ jéggal naa la. yàlla naay dëkkee sonn ci nit. te bu kenn sonn ci man nañ bàyyi yàlla ak dem ci man. Mhm. waaw ci biir làmb bébé mi ngi ci comme ni ma ko waxee sànq nekk ci ci am solo mais dañuy gis jamono yi ci ay ndog-ndog mën waral ak ban façon ndong euh ñu ngi doon dégg ñu ne bébé dañ ko arrêté. wa lool de mam Thierno dama ne dootuma ci waxati ndax passé na. Mhm. natt bu ba nga nga ko a mhm. ah, nga tam ku nekk bu la ci laajee am nga droit tontu ko ca la cay xelam. Mhm. ne woon du ma ci wax waaye dëkk la doo ci yombul. li tax ma di ci ba mooy tax saa yu ñu ma laajee ci sama yoonu kaso ma sawar cee wax su ma meree axlu làmb Bébé Diène ak Kaaw Cissé tax ndax dañ leen a seetaan wallaay dañ leen a seetaan yeneen ñeneen ñi ñu jàppoon kaso seeni mbokk jóg ñiñ bokkal lañ nekk jóg bàyyiwuñ leen Kaaw Cissé ak Bébé Diène xaw ma lu nu def waaye gëw ma it ni def nañ dara xam lu ko sabab man damaa defuloon dara ñu ma moo duma du ma gëm ni kenn ku fa nekk def na dara parce que ku ne sa bopp doy na la misaal du ma ni kenn defut nag waxuma it ni ñoom ñaar defuñu waaye day yërmandey gone lañ seeni mbokk yaakaar leen ñu war leen a taxawu tax bu jëree ñu génn ñu yar duma leen ngir ni leen bu leen ca jaarati mooy yoon mais man gisuma axlu làmb buñ toogee di kéré ñetti biteelu làmb biir géew buñ nuñ daggee mbërëm la ñuy kii te ku bokk ci buñ ko jàppee doo ko jóg waxal doo ko jóg kaasal doo ko jóg doxal. non ma ne bébé bi nekkee ci jafe làmb taxawu na ko gëstu na ko na ko. waa dekki làmb day. taxawu nañ ma. surtout Gris Bordeaux mention spéciale pour moom. Mm-hmm. Gris Bordeaux. Mm. taxawu na ma ak waa association dekki làmb. Mm. waaye làmb taxawu ma. làmb taxawu du président bi du trésorier wu waa CNG ku bokk CNG taxawuma Père Malick Thiandoum laa ci doon gis moom laa ci doon dégg mu ci taxaw bu baax Assane Ndiaye doon ma ci woo bu baax aussi nekk ku baax mais à part ça moom Gris Bordeaux moo ci def lu ne daj ci lu ne avocat la ma jëlal waa dekki làmb dajale nañ seen guy ak seen daqaar ñëw jox ko suma soxna ñooñu moom waa damaa bokk ak ñoom loolu waaye ñi nga xam ne ñoo ma tuumaloon téye ma ak lu ci xew. ku ma ci fekkee ak sama kër ñaar dërëm na ko wax. Gris Bordeaux daal moom jàppale na ma ci biir ak ci ak suma mag yu ñuy wax monsieur le maire Bara waaw ñooñu daal wax dëgg yàlla kuy wax dangay ngay wax te yàlla tax ñooñu jàppale nañ ma waa Dekki Làmb association Dekki Làmb ah wax dëgg yàlla taxaw nañ ma mu néew mu bari jàpp nañ ci. waaye ku dul kooku ak lu làmb kenn jàpp ci te xaaruma leen woon it nag mhm. wax dëgg yàlla parce que avant avant làmb ji avant may de nag natu di daal dérangé naa leen ndax nag siège bi fi njëkkoon nekk maa konaa ñoo ko yëngal mu ñi fi toogoon vingt quatre ans uh-huh. dund luñ làmb dëgg merci maam Thiar Sénégal TV de maa ngi leen di ñaanal yokkute surtout yow ci loo ne damaa bëgg mu yokk danga ngaa baax danga nga ma yëg trop vraiment ndax nag ñu bëri ñu ngi bëgg ma def ak ñoom émission mhm. dama leen a gàntu ngir mais daf ci am ay personnes yoo xam ne mënu ma leen ko bañal parce que nin ma def la parce que boo nekkee ci ruq bu lëndëm bi ku jël briquet taal ko rek nga gis tuuti éclairage da ngay jàpp ni mu amoon courant foofu leer foofu la ñuy waxee na jaam ñi dégg loolu euh, kon ñu ngi lay ñaanal fi nga nekk yàlla na yokk ba doon lu yaatoo yaatu lu kawee sa njortu yàlla mën na ko ndax da koy defal jaam ñi ndax lépp loo gis rek ci lii la tàmbalee ci lu ndaw rek ba ci du doon lu mag yàlla na ni léegi ca kaw rek ñëpp di ko seen jéem jéem ba waaw ñu ngi lay ñaanal jàmm di ko ñaanal détenu yëpp nag aussi sama kàddu gu njëkk détenu yi lay doon bu mujj détenu yi lay doon ndax ñoom laa am ñu ne ci hôpitaux yi tamit ndeysaan bëgg a faju yoruñ xaalis yàlla na sa borom def euh, ndeysaan ku tàggat kum tàggat seen xol ñu dem dimbali leen euh, longue détention yi metti na ma ngi ñaanaat suñu papa Bokande, mu defaat visite proximité ci biir kaso mi waaw ndax wax dëgg yàlla kaso yi metti na torop mënoon naa génn du ma waxati ci kaso yi mais damay doon hypocrite di ko parloté ci ko war ñu ko war def suñu papa Bokande moom lañ dénk carte bulletin yëpp wax dëgg yàlla mi ngi koy doxal waaye daanu dajul suuf te léeg-léeg li ko yi limal day wuteeg la la la muy amal ma bëgg ko ko mu bàyyi xel ci gars yi bu baax et di ñaan senegal yàlla na fi jàmm sax di ñaanal suñu Abdul Karim Mbàkke naaru moom aw fay mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax day njëriñu jaam ñi ah di ñaanal askanu àdduna yëpp di ko njëkkee sama dëkk Kaolack Saalum maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax nag nu ma mel ñoo di ci jiital suma mag Ablaye sama taawu yaay di ci teg suma mag baay Ndaw di gërëm waa Kaolack gépp di gërëm suñu waa groupe bi nekk foofu ñoom Ibi Jeeju jiite ko ñoom Dame Sour maa ngi bëggee ñëpp wëlbati ko nag ñëw caaro gi nga xam ne bi ñu ma juree ñoom waa Saalum ñoom lañ ma dénk ñu def ma nii ma mel caaro yi mag ndaw góor jigéen aw ma seen fay ndax nu ma mel ñoo ma fu ma mësaan jóg ñëppay jóg. ñu nekk ñoo xam ne ci man awma seen fay kon du ma wax ba wax jeex te santuma leen gërëm leen sant naa leen sant gu ma xam commencement bi waaye xaw ma kañ lay jeex biñ defee ci man jikko ji wóolu nag ñu jëlaat ma dénk ma waa Malika ndax 2009 ba léegi maa Malika mosuma fee yàq mosuma fee yàqule ah di gërëm waa Malika tamit mag ndaw góor jigéen ñi fi nekk ñëpp autorité yëpp maa leen di gërëm ñi ci jàpp ak ñu ci jàppul ñi ñu xam ak ñu xamul képp ku yeewoo Malika rek man Bébé Saloum maa lay bëggee ndax nag loolu rek a ma war di gërëm Baye Fall bu baax a baax a baax a baax a baax di bëggee suma rakk yi nga xam ne su ma gëstoo gis leen ku ci mel ni Mouhamed boroom ñaari bébé yi ak suma doomu nday àddiya As xam nga ay ñoom Diaz ñoom Sëñ Naar ñoom saar ñoo ñu dañoo nekk ci man ñoo xam ne ñoom Mamadou Koura ñoom Tafa ñoom Grand Mbaye Saara. ak suma mag Roqaya Mbodj suma mag Awa Thiam ñooñu dañoo nekk tet yoo xam bu ma gëstoo dama leen di gis di gërëm waa géejawaay li ci bari benn ngërëm lu denc loo xam ne bis dina jot ñu génn ni kiyee ko moomoon biir géejawaay maa gërëm ña fa ne fa am benn vrai guerrier benn lion benn jàmbaari fàkk tëdd boo xam ne bis dina jot ñu wane ko ni kiyee moomoon ngërëm lañ doon denc te bëgguñ ko ko xam maa ngi sant waa àdduna di ñaan yàlla tamit li ma wax bu jubee yàlla nañu ko yàlla boole mu yërëm yërmande bu dëngee ngeen jéggal ma yéen ñu ko dégg te xam ni daa dëng jaam laa bu bëggoon a wax rek war a wax te sañ wax ñu di ma wax loo rek ma doon waxande wu defi wax ñu ubbi ma may laaj ma ñu liñ may laaj su jubee sante naa ko yàlla nañ ko bokk bu dëngee ngeen jéggal ma di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm sax di waxaat sénégalais yi. nañ sàmmaat jikko yi di waxaat sénégalais yi nañ dolliwaat yërmande yi nañ waxaat sénégal nañ sol nañ subbi mbubu faux type bi wane lu nekkul ci ñoom affiché end juillet cowboy nañ ko dindi ngir àdduna defaru ndax nag dëgg rek ay dëgg la ci ginnaaw dëgg lay jaaxaan la gis nga loo fen ba jot ci boo waxul dëgg jotee ko nu ko gënee sëñ Babacar Si mu baax ma moo ko daan wax loo fen ba jot ci bu leeree borom mu nangu ko du ca yem da koy booleeg jéppi la nañ wax dëgg te yàlla tax nañ yërëmante te yàlla tax nañ defaraat jikko yi di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm sax jërëjëf. am na solo kon dañuy am mbégte ak kontaante bu baax a baax ci ki nga xamante ne tey moom lañ seeti woon fii ci Malika muy suñu frère di Bébé saalum di koo xamante ne bii nitu kase la te tamit nit ku yàlla baaxal la ndax saa bu ñu ko woowee rek wala ñu soxla ko ak lépp lu mu mënti jàpp rek dina ko bàyyi defal li nga xamante comme ñun ni ñu ko bëggee dégg kàddu yu mu li nga xamante moo xewoon foofee ca kaso ba li mu fa dund wax na ko ci ay kàddu wax tamit ñi nga xamante ne ay nawlam lañ di ay mbër nekk ci biir làmb yi ku ci mel bébé ak ki nga mooy Kaaw au passage tamit di profiter di la ñaanal foofu ñu nekk yàlla na yàlla na fa suñu borom génne ba ku ci nekk nekkaat sa activité bi nga xam te mooy li gën si yow kon ñu ngi am mbégte ak kontaante ci képp ki nga xam ne rek mi ngi suivre Lutte Sénégal TV di leen wax seen la boo xamante bi li ngeen bëgg ci wàllu fii lay xewee waaye nag maa ngi bëggee bu baax a baax suma xarit suma doom yaay borom ñaari bébé néna la mom sa bu ma soxlaa bébé salum suma suma su jotul bébé suma ma ko jotee rek lima bëgg day yëmb kon ma ngi koy bëggé bu baaxa baax di bëgg tamit suma cameraman muy Paco di wax yalla na suñu borom defal jamm liggé bi ma soxla jaar na kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di lañ jox rendez-vous ci benen daanan ci li Sénégal TV di lañ wax jamm ak yalla yàlla yalla tout askan suñu gal jërë ngeen jëf merci beaucoup na solo. faïence yi nga xamante ne dafay décorer sa cuisine ba mu ne boy ak li nga xamante ni moo di sa salde de bain ànd ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ne boo ko defee sa façadu kër da ngay mel ni ku nekk ci panaal établissement Khadim Rassoul seeni karo du jël benn yoon ndox ba noppi ay qualité yu baax la ñuy jaay te seen karo du yàqu waaw waaw kon nag yow mi bëgg ay karo yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk ca Parcelles Assainies ca booru marché police ba seen numéro téléphone 33 820 39 95 alors 77 720 32 44 établissement Khadim Rassoul nak dañuy ubi du lundi au dimanche à dama ne kon nak bo bëggee ay kar yu bax dawal gaaw séti établissement Khadim Rassoul ña nga nekk fofu ci parcelle Assainies ci marché police établissement Khadim Rassoul le choix de